dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo woppi coronavirus bëri na ci àdduna bi ñoo xam ne dañu doon wax ne bu duggee Afrique nag dana leen faagaagal Assane Samb ne xayma boobee su amul dina am ci beneen fem boo xam ne woppi coronavirus dina andil jafe-jafe Afrique bu baax a baax yéenekaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb la mu xam le nee na nag étude bi nga xamante ni banque mondiale def na ko baaxul benn yoon ci Afrique maanaam sax dina laal àdduna bi yëpp waaye Afrique nag ginnaaw coronavirus bi daal dina daal nërmeelu bu baax a baax ci lu jëm ci mbirum économie yéene kaay gi di l'observateur mu xëy di ñu xamalaan ñu Sénégal nag jamono ji mooy bi ëpp coronavirus ci Afrique de l'Ouest libération mu ñu xamalaan ñu ni ki démb am na ñetti nit ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan waaye lu toll si ñetti fan rek lu toll si ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay nit amoon doomu jàngoro ji daat nañuy wér yéene kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu waaye am na lu toll ci fukk ak ñeent ci ay cas grave l'observateur mu xëy di ñu xamal lan ñu jamono ji nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci APR am na si ñenn si ñoom mer nañ ba maara day taali li nga xam ne moo leen merloo mooy Macky Sall moo daal di tabb ñoo xamante ni daal ay noonam lañ woon démb maanaam ay transhumant yi Macky Sall fal yéen a kaay gii di la turbine mu ñu xamal naan ñu tabb gi nga xamante ni tabb nañ ko Moussa Sy ak Abdou Fall loole nag merloo na waa APR waaye nag Macky Sall ci boppam daat nay mer jamono ji te soo mooy dina daal di génne yat wi yéen a kaay gii di réew xëy di ñu xamal nañu ni kii ci Paris la France la woon ubbite procès Lamine mi nga xam ne dañu koy tuumal ci lu jëm ci mbirum ger mbirum lu xunjura ci IAAF démb nag ay avocat da dañoo bëggoon ñu a àtte bi waaye nag dañu kaa daal di mujjee lànkal Lamine Diack moom nag daat nay wax ne sama wàllum wér-gu-yaram daat nay gëllu góose waaye maa ngi nii ngir nag feeñal dëgg yéenekaay gi di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu doomu Lamine Diack di Pape Massata Diack moom nag daat nañ koy lancé daal di koy jàpp yéen kaay gii de la témoin mu ñu xamal ñu Gabriel Dole mi nga xam ne mooy yoroon lépp loo xam ne jëm na ci mbirum antidopage ci IAAF moom nag daan nay dugal bu baax a baax ki nga xam ne mooy Lamine Diack daana na koy dugal ni ruba ndax nee na Lamine Diack moo ko sollicité woon ngir nag mu yeexal sanction procédure yi ngir nag athlètes yi nga xamante ni dañu leen di tuumaal ne dañoo doppe wana te ne ca Russie yéen kaay gi mu ñu xamal naan ñu Lamine Diack jamono ji ngir mu génn ci mbal ki dina daal di jafe loola libération ne en tout cas li am Samba de Sall bi lii mu wane maanaam projet verbaux yi tat nay doy waar bu baax a baax rawatina nag xaalis bi nga xamante ne Lamine Diack moom moo ne munu ko woon a ñàkk am ngir nag dugal ko Sénégal ngir nag mën a janoo ak Abdoulaye Wade rawatina doomam ji di Karim Wade ci élection locale 2009 Lamine Diack ba tey ci Libération nee na munutoon a ñàkk jënd ay oto ay salle de meeting ay track ngir nag jàppale ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi yéen a gi mu ñu xamal nañu en tout cas li am ba des soo muy tuulee fukki ati kaso danañu ko tëj Lamine Diack yéen kaay gi gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal ñu élection locale ci réewum Sénégal jàpp ka amal ka lu jafe ko jàppee dañu koy dàq waaye nag rawatina élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak woppi coronavirus l'observateur na njiitu réew mi di président Macky li nga xam ne moo emballé sa ma ngi li nga xam ne mooy yi a mi daan na li nga xam ne mooy compteur a dox diggante Sénélec ak Akilee exclusive mu ñu mel ni tulleeg màlle yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa maître Ciré Clédor Ly moom nag daat nay def ay révélation yu doy waar doy waar ci mbiri Assane Diouf daat nay wax ne Assane Diouf jamono jii sax daat nay pare ngir nag jéggalu ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président Macky Sall moom avocat bi nee na policiers yi ñoom seen bopp ñoom manipuler li nga xam ne mooy procès verbaux yi daat nay wax ne juge d'instruction bi moom esclave procureur la maanaam jaamu procureur la kàddu maître Ciré Clédor Ly la ma ngi ci yéen kaay gii Quotidien yéen a kaay gii di 24 heures xëy si Omar Ndiaye Angoloma mi nga xam ne responsable politique APR la ca diwaanu Mbàkke moom nag dafa am benn moodu moodu bu tudd Daouda Seck boo xam ne moo koy topp lu toll ci fukk ak benn ci ay millions moom Daouda jàpp ne Omar Ndiaye Angoloma da ka de buliña maanaam daf kaa daal di triandé tax mu daal di koy porter plainte ca DIC division des investigations criminelles waaye nag waa DIC convoqué ko ay yooni yoon Omar Ndiaye Angoloma bañ a daal di wuy ji niki démb nag mbir mu doy waar moo ci am ndax Omar Ndiaye Angloma ma ma ngi ci bureau ma rue Mohammed 5 dañ faa yebal ñetti élément yu dikk bi ñu demee nag yéeg ci immeuble bi dañoo daje ak Omar Ndiaye Angloma ci escalier yi comme ñoom xàmme wuñu ko ñu daal di koy laaj nag Omar Ndiaye Angloma fan la dëkk fii fekk moom ci boppam la ñuy waxal mu daal leen di dëbb li njaa ne leen Omar Ndiaye Angloma quatrième étage la nekk élément diggé daal di yéeg fekk Omar Ndiaye moom tim ne mes ne menteña mu nekk mbir mu doy waar li nga xam ne nag moo doy waar ci mbir mi comme deful dara lan moo tax mu lànk kandaare wuy ji stade yéenekaay yi xëy ci Sadio Mané ak Ismaïla Sarr mi nga xam ne bokk nañ ci téeméeri footballeur yi nga xam ne ñoo gën a cher jamono ji Neymar moom tim daal di wax ne jamono ji nag sama sàkkuteef ak sama bëgg-bëgg mooy jóge Paris Saint-Germain dem Barcelone gi nga xam ne fa bàyyi ko woon